mbokk yi gannaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonentu bu tedd bi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifatul am cheikh mouhamadul muntaka mbàkke ibnu cheikh mouhamadul bachir yàlla na fi yàgg te wér ba àggale naa yim naalal lislaam yépp naalal ko xam-xam ci barki alquraanul karim mbokk yi waxtaan yi ñu leen amal ci weeru safar bi ànd koo compagnie alaaji sëriñ Seck C3S ñu di ko amal ak yéen di leen ci gunge muy ay thèmes yu fasantikoo jëm ci dund sëriñ Touba tey nag ñu war a waxtaanee Serigne tubaak ak alxuraan mm-hmm. ànd ci ak borom xam-xam bind bindkat muy Serigne Makhtar Kébé moom Cheikh Salihou Mbacké radiyallahu anhu mm-hmm. Serigne Makhtar comme ni ñu ko daa defee rek laataa ñuy dugg ci waxtaan bi dañ lay bàyyi nga nuyoo li la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Omar Sylla maa ngi lay nuyu bu baax di la di nuyu sëñ Moustapha sun technicien bi di di yóbbanteem nuyoo Serigne Mbacké Sorang. Mm-hmm. xam naa moom it dana fi jaar. feeg suba incha allahu rabbi. di jotal nuyoo sama doom ju ma àndal Serigne Ndiaye waaye di nuyu alxalifatul am lil muridi ya cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal fa nu gudd ànd ak wér. di ko ñaanal njabootuk sëriñ Touba gépp tey nuyu nag njaboot gi tey nuyu itam bokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk. di beral am nuyoo akub siyaar alaaji Serigne Seck C3S di ko nuyu di nuyu Serigne Fallou Seck ak sëñ Dame Touré. waaye di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy xëy ci kër gi ci ñi nekk ci biir capital bi ak ñi nekk ci gox-goxaan yëpp. di beral am na yoo suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci yu mel nii dara war la ko dul rek ak yokk aku xër buñ ci séentu te di ko ci yaakaar ñu ngi nuyu ñëpp tey siyaare ñëpp sañu jërëjëf sëriñ Maxtaar ci euh, nuyoo bu am solo boobu sëriñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk jëm ci alxuraan diggante sëriñ Tuubaa ak alxuraan mel ne diggante bu yàgg la de boo ñu ci doon dikkal tey la nga wax jërëjëf sëñ Omar sëriñ mooy alxuraan mm-hmm. alxuraan defal sëriñ Tuubaa lu ne jaawartu bil furqaani rabbiyal muin mm-hmm. mm-hmm. nga kon bu àggee ci yàlla waasita bi ko ci yàlla mooy alquraan mm-hmm. wa axlaaquhu alquraanu wal qad jadal benn shaacir ko waxoon mooy Cheikh Ibrahima Diop almashari wa axlaaquhu alquraanu wal qad jadal jikkoo mooy alquraan ci la noonu bi yàlla ba nërmeel ko ci suuf sëriñ Touba moom nag buñ ne mooy borom alxuraan it wax na ko fu bari suñ borom moom moom loo na ma ko ak lu bare bari eh, xam naa maa ngi tàmbali ci wax ju ma ñor jataay bu ma seqoon nag seex Saalihu Mbakke radiyallahu anhu keroog wax ja la yaatu yaatu wenn bayit la ci sëriñ bi doon wax muy Cheikh Saalihu laqante nii yaa maliki alfaada wa bi turaqi xisbaka alxufaada allahu akbar moo sax sëriñ tuuba baat ya baat yooyee alxuraan la ko Cheikh Saliou Mbacke jàppe ndax dana wa bi xisbaka alxufaada ci man sëriñ tuuba yow yàlla ci ngay yéegale sa kuréel bu mokkal alxuraan bi la ko ci gënoon ñor rek mooy nee kon murit bi war naa jàngi alxuraan ndax yàlla suñu borom boole ko ci kuréelub sëriñ bi kon loolu lu wér a la sëñ Tuubaa di alxuraan waaye ku mas a baaxe ci alxuraan la la jaare fa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra alqurana laa yansaahu kooku ndigal mënu ko féete kaw la ku bëgg a jege sa borom sëriñ Tuubaa nee na ngay jàng alxuraan te bañ koo bàyyi. laa yenn saahu boobu boo demee ci sëñ bàyyi sëriñ Buso. laa yatrukuhu la ci bind. ci suufu sharxa ba. Mhm. wax na du nisiyaan boo xam ne. waaye boo ko bàyyee ci nga koy fàttee kon bu ko bàyyi. xam day am istimraariyeen. istimraariyeen. day am mhm. kon nag bi ki des mooy kitaabu bi kaana lii. Mhm. li ma ne sëñ Tuubaa mooy alxuraan nag. moom laa bëgg a layal. kaana. ku ne xam na lépp lu nekk lu nekk nekk la. nekkal la. loolu yaa ko moom. kitaabu rabbi kaana lii. da nga koo nekk da koo nekkal ba noppi kon. waaw kon kaana lii moom. Mhm. wa kuntu lahu damay mudaaxala sëñ Omar. allahu akbar kaana lii wa kuntu lahu kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu téere sama borom bi daf maa nekkal ma nekkal ko. kon loolu ma ne li tax mooy bu ni murid ne sëñ Tuubaa alxuraan foofu lañ ko teg. dëgg la. mu def ci alxuraan lu ci kenn deful. Mhm. teg alxuraan it fu ko kenn fe kenn tegul. Mhm. quraanu rabbiya laa abqi bihi badala. alxuraani sama borom Sëriñ Tuubaa nee na. Mm. du ci wut mukk lu ko wuutu. amul lu ko féete kaw mukk. dara féetewu ko kaw. mu koy jàng. Mm-hmm. di ko jàngalu. Mm-hmm. bëgg ku koy jàng. Mm-hmm. bëgg ku koy jàngalu. diir diirub dundam. xisa bi ma ciy indi rek ndax vingt cinq minutes daa bëriwul. ku ne xam na ne Mamor Diarra. ak sëriñ bi ñoo bokk lépp. bu Mamor Diarra dikkee di gane si Sëriñ Tuubaa ci njaareem. këru sa këru njaareem gi dañ ne ñaar téeméeri mètre yi matoon na ay jamono donte am mbedd wàññi na ko maam Mor Jaara ñëw fa ganesi ko sëñ bi dalal ko ci am mbaar ganale ko ba ngan nga jeex ba muy ñibbi sëñ bi ñëw ne ko mbakke mbaa ngan ngi neex na mu ne ko tubaari kàlla mu ne ko mbaar mii ma la dalal laa moom ci kër gi leneen lu dul mbaar mi alxuraan ko moom ci kër gi allahu akbar nga xam ne léppam alxuraan léppam alxuraan nee na ko néeg boo fi kees goo fi gis keesug alxuraan la néegub alxuraan la mhm. kon yaakaar naa ne teg dara fenn te teg ga di tegug teraanga di tegug tedd ngaal mhm. mënta wees loolu dëgg la bi ki des loxol boppam lii mu moomal boppam luñ ci mës a teggi teg alxuraan la waxoon naa ko léegi mhm. boo ko nee jëyi alxuraan da koy jël te su ko jël da koy taf ci dënn bi noyyi bu baax allahu akbar ko daan jëlee leneen boo ko joxee naaru góor mu yeew ko fee ku bëggu naaru góor bu rikkee mu ne ko jëlal naaru góor wee soo ko joxee dugub mu teg ko fee ku bëgg lu mu dépensoo njël mu dikkee mu ne ko jëlal njël lee alxuraan da daan jëlal boppam daan ko dencal boppam te fa mu ko denc du fa yebal ñu bari te mu am lu nekk ci lu mu war a dépensé ci alxuraan la ko daan boo boole sotti sikki teg ca kaw lal ba mu doon tëdd tëdd ci suuf jël xalimaam di ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili mhm. wa xam lu kunta tabibi ku ne xam ne loolu ku ko wax amoo mhm. amoo kenn relation mhm. ci kaw suuf ku dul kooku le dëgg la ci alxuraan ci jàng ko ak jànglu ko boo xoolee bi mu fiy nekk daari kaamil yi mu sampaloon boppam ña daan jàng lim am ñoom la ko daan féetale ci di leen ci jàppale di leen ci dimbale feneen fa waaye bindeb kaamil boo ko indee bu la sëñ Tuubaa yeewee soo demee la seen waa dëkk yi bay lépp da ko mën a jënd ca loolee mu la jox ca kaamil ba ngir bëgg alxuraan rek ngir bëgg alxuraan rek boo bëggee dara mhm. da nga koy nangoo def sa dara mhm. sëñ Tuubaa li amoon lépp ci temps mhm. jox na ko alxuraan li mu amoon lépp ci alal def na ko ci alxuraan ak ñooñu alxuraan waral na nag alxuraan uyi ko ba nga xam ne ku yor alxuraan boo nee ñokket dana yëg ne yaa ngi ñëw sëñ bay jaxate radiallahu anhu dafa nekk xuru mbàkke ay gone àndandoo ñëw ne ko ñun de dañoo bëggoon a siyaare si ko tedd ka mu ne ko ndax mokkal ngeen alxuraan ñu ne ko déedéet mu ne leen yéen su ngeen demee da ngeen may sonal waaye du ngeen ko gis xale yi ne coow dem jàngi diir bu gàtt ñu jàng seen alxuraan mu mokk ñu bind ay kaamil ñëw ne ko dañoo bëggoon a siyaare ji ku tedd ko mu ne leen lu ngeen yor ñu ne ko ay kaamil mu ne dox leen ñu dem ngeen wan ma ko allahu akbar dox leen ñu dem ngeen wan ma ngeen wan ma ko kon sëñ Mbay Jaxate ma doon bëgg a yóbbu gone ya neen la mu yéen a may wan bi te te booba ñu ngi xuru mbàkke téléphone amul dara amul ñuy war faa jóge dox ak tànk wut si njaare allahu akbar biñ biñ daatan ak sëñ Tuubaa génn ñett yoon daal ne ana yooyu yore kaamil yi jóge xuru mbàkke ndax yegg seeguñ hmm. kon wax ngeen wan ma ko yita am naa feeñ yoonu mu wala ne tëll tombeek ñoom biñ agsee rek sëñ bi daal ne nañ njëkk balaa kenn ñëw nañ ñëw ba noppi sëñ bi jaxate ànd ak ñoom ñu daal di koy leeral ne ko ñii ñii ñii nee nañ buy jël kaani da ko daan da ko daan cas teg ko ci dënn bi noyyi noyyi gu kawe kon ñoom ñooñu mu ne woon kon dox leen ngeen won ma ko njëkk suñu ñëw rek sëñ bi yëg na ñu ngi ñëw allahu akbar kon alxuraan lépp sa sëriñ Tuubaa ci la ko def uhuh. moo taxit nag wax dénkaane na ci ndénkaan lu am sore lu am solo wax na ne téere bii di téere bi yàlla bi ak gaal la ku bëgg a géeju géejug géejug mucc waral ci kaw gaal gi xam nga li man yàq najaata mhm. fulk dëgg la ku bëgg a mucc mhm. téere bii mhm. mooy gaal gi lay mën a jàlle la sauvé la ba nga mën a dem ci walla dex kon kooku léppam mooy alxuraan sëñ Omar jërëjëf sëriñ Maxtaar lépp mooy alxuraan ndax suñu borom ma ko waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. maa ngi la koy jox waaye maa lay xamal ne yonent bi fàttali la ah. maa ngi lay fàttali wa innahu la dikrun lak wa li xawmika wa sawfa tusalun hmm. sëriñ Tuubaa foofu rek la tegoon tànkam hmm. nandal njabootam ci alxuraanu karim kilifa gu baax daf may netti dafa dem màkka saa bu xëyee balaa moo def dara bu jullee fajaram ba noppi ubbi kaamiram bi jàng moom saa mbooleem diir bu nekk màkk yëpp loolu loolu loolu la fa nekk nga xam ne ni mu ko daa defee fii ci Sénégal loolu ko daa defee màkk ki mu dendal ne ko ah man day señ bi bett nga ma lool mu ne ko lu tax mu ne ko man liñ ma liñ ma waxoon ci yéen ak li ma gis wute na lool yéen alxuraan ni ngeen ko def nii man mosuma ko gis fenn ci àddina yow maa ngi ñoo bokk nekk jullit nga jullit laa mën naa jàng mën ngaa jàng waaye jot yi nga jox alxuraan man joxu ma ko man su ma xëyee damay julli rek dem sama yoon waaye jël ki sa waxtu mhm. loo xam ne saa bu jotee di nga xam ne lii alxuraan ko moom mhm. loolu moom nga ma ci te day wane rek ne njabootuk sëriñ Touba. Mhm. lu dul fonk alxuraan waru leen. Mhm. jërëjëf sëriñ Maxtaar. Mhm. ndax sëriñ bi. fonkoon na alxuraan dëgg la naam lu ñu lu gëm la lu leer la. ci ni ko leeralee. waaye ndax dafa yemoon ci ñi ko ñi ko mokkal képp ana diggante sëñ bi ak ñi ñu doon bind alxuraan. bindkat yi ab lim lañ woon boo xam ne ñoo daan bind. ñu niroo woon ay bind lañ. ba kenn ku ne fi nga yem bu ëllëgatee doo ko xàmmeek fi moroom ji tàmbalee. Mhm. loolu lépp ci technique la bokk. Mhm. boo xam ne tey boo ko bëggoon a andi ci technique alxadiisa alxadisa mhm. danga fekk lee gën koo efficace. muy technologie bu bees bi muy technologie bu bees bi. bindkat yi bu ñu masaan bind am na téere boo xam ne téereem njanja lañ ko la ko Sëñ Tuubaa tuddee. njanja njanja. mooy séddale ay kaang. ci benn bis alxuraan lépp ñu bind ko bi jant bi daa daan maas ñu bind ko topp kooku kenn mësu koo def ci kaw suuf ku lu Seexul Xadim Cheikh Amadou Bamba benn benn bis benn kaamil ci benn bis allahu akbar néeg bu mu doon teglu muy juróom benni koñ mhm. bu ne am kaang yenu ko jàng fukki isib door a ci mhm. jën wi kenn mësu koo def pour Seexul Xadim te bañ koy def ma nga ci digg ba moom itam am lu muy warlu lu mhm. muy jàng ka eh, eh, yeggale kon kaawteef la ci alxuraan bindkat yooyu ku masaana bind yët ko mbaa nga bokk ci ñiy bind ñoom daf leen a defoon muy niti boppam li alxuraan li suñu borom alxuraan ahlullaahi wa xaasatu wa xaasatu mhm. waaye ñi man ci biir kër sëriñ Tuubaa alxuraan yi mhm. ñooy ñooñ sëriñ bi dëgg-dëgg te ñooy ñi jagoo mhm. léppi sëriñ bi la loxol boppam lii moo lañ ki joxal boppam attaaya misaal ma ci nettali Cheikh Salim Mbacke mas naa xelli attaaya got got daaraama ju nekk fii ci wetu Thiès di ko xellil sëñ daara yi ñuy naan ba yàgg sëñ bi ne leen sa laaw jubluwuma ci seen bànneexi bakkan taxul ma xelli leen ataay ji waaye damaa xam ne sëriñ bi daana ko defal ñe ko daan jàngaleel alquran ngir roy ko ca ngir roy ko ca dëgg la kon moom suñ ta suñ tubaa daawul def dara ngir toppal kenn bakkanam mhm. waaye lépp lu mu daan def alquran a tax mu dina ko defal mhm. Cheikh Sall Mbacke bëgg a barkeelu ci loolee moom itam defal ko ay taalibam ay jàngalekatam mhm. ngir alquran bisimilah jërëjëf sëriñ Makhtar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci ñi ko daa bindal dafa may fàttali waxi sëñ Moussa Kadia eh, ñi ko ne ñi ñu ko daa bindal lam leen daan defal daawu ko defal ngirul ñoom boo féete woo di ko bindal mu féete woo di la dundal nga di ko dundal nga di ko bindal di ko bayal mu ñuy bay di la di la jox mm-hmm. xam ne réew mépp màbb nag wuti si ko mm-hmm. fu ne bind di fa jógee di ko wut si mm-hmm. ndax teraanga ja nga xam ne moom la ci daa génne bëgg alxuraan ngir fokk alxuraan dis nga rek diggante ak sëriñ Ndiass waa waajuru sëriñ Mor Mbay yàlla ko yàlla yërëm te yokk ay leeram mhm. fi mu jaar ak sëriñ bi ci wàllu alxuraan mhm. ak ñeneen ak ñeneen mhm. yaa ngi fàttaliku naaru gànnaar booba Mouhamadul Mahmoud daana wax ne man tant que Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi dund nekk njaareem dootuma ñàkk ñu ne ko lu tax mu ne damaa mën a bind te daa bëgg alxuraan lu ma bind mu rafet ma dem jox ko mu ma alal ma dund kon day wane rek ne ku bëggoon alxuraan la waaye ku bàyyi woon xel alxuraan la ndax mooy man baaw dusturil muslimin fan la ñuy balluloo luy jëriñ jullit ngi seen wàllu dund seen wàllu diine kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu mhm. sëriñ Maxtaar suñu mhm. beneen laaj mhm. diggante sëriñ Tuubaa ak alxuraan ban dayoo ak ban daraja la murit bi moom war a jox alxuraan gannaaw bu déggee fii sëriñ Tuubaa teg alxuraan innal muhibba liman yuhibbu mutii'un bëgg naa sëriñ bi dangay ngay topp sëriñ bi ca lam nekkoon dëgg la cafeel gën sax in kuntum tuhibbuuna allaha fattabiuni ku bëgg ca la ca yàlla da ngay nangoo topp nitug yàlla mhm. li sëñ bi def ci alquran da ko def ñu di ko gis mhm. mu santaane ko it ñu di ko dégg mhm. fa man araada alqurba min mawlaahu fal yaqra alqurana laa yansaahu koo doy na sëkk ku bëgg a jege sa borom del jàng alquran bu la ko sëb sëriñ waxee kay yow wàcc nga moo tax Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu daana wax naan sëriñ Touba daana digal képp ku mën alxuraan sase na la sas ñaar fukki isib bis bu set ku mënul alxuraan nag loo ca jàng baax na waaye ku xas ba ne mën naa alxuraan ñaar fukki isib la la sase nga xam ne sas woowu ci sëriñ Touba la jógee ñëw ci yow kon defe naa ne ku mën alxuraan ñetti fan yu ne nga wàccee ko kon li ngay wàccee ci ay kaamil dana dana bari ba ca des mooy daara ju ngeen mës a dégg sëñ bi samp ko ak fu mu ko mën a sampe alxuraan yi cëslaay la ak julli ak julli dana fa def daara ak jàkka ak jàkka dëgg la def fa imaam mhm. akub sëñ daara mhm. ñu door faa yóbbu nag doomi jullit yi doomi taalibe yi mhm. ñu leen di jàngal waaye lii moom mënta ñàkk fu barab boo xam ne sëñ Tuubaa daruriyan mënta ñàkk ndax njaareem gi li muy xat-xat ak li sëñ Tuubaa di tabja tabja ñi ñi la ci ëpp ña fa doon julli moo leen doon jiite. julli ñoroon na ko ñor gu toll ne nag ka ko daan li mas naa manqué bis sëriñ bi gees na waaw ana diw ñu ne ko moom da daa tawat sëriñ bi jóge si jàkk ji jaar kër diw di ko seeti. bi mu ne asalaamaaleykum waa ji jóg di ko nuyu sëñ bi ne ko kon kay dara dalu la damaa defoon kay danga nga ne làcc dara mënta yëngatu moo la tee julli si waaye ginnaaw mën ngaa jóg nuyu ma kon ngaa dem ci jàkka allahu akbar boobu tashaddud la amoon ci lislaam mhm. alxuraan itam ni ngay xamee ne fonk na ko mhm. mooy daana wax ne gépp gone gu am qaabiliya rek nañ ko ko jàngal maay nag képp ku ko sang man sam xel mate mhm. nañ la jàngal alxuraan ak ku mën a doon moo tax kii maanu ku say maam daawul jàng alxuraan nga mujj ni mën alxuraan ci sëriñ Tuubaa la tàmbalee waaye bu jëkk réew mi dañ ko séddale ñii dañoo war a jàngi moom force ñi xam ne askan wi moom jàng lañu war askan wi a jàng dañoo war liggéey moom jëlee fi loolu sëñ Tuubaa am dafa jël dana mhm. mhm. koo xam ne yaakaar ngeen ne bu ngeen ko jàngalee dana mokkal nañ ko jàngal allahu akbar moo xam nag du ma dugg ci domaine waaso mhm. waaye am na ñoo xam ne ñoom daawuñ jàng loolu ba tey fas yéene tasaare alxuraan la doomi sëriñ Tuubaa ju ngeen mas a dégg muy góor mbaa jigéen mokkal na alxuraan bind kaamil ay yan kaana wa ay yan kaanat wa ay yatan kaanat ku mën a doon rek mokkal nga alxuraan ci góor ak jigéen ci góor ak jigéen doy na kon miracle mm-hmm. doy na mujiza mm-hmm. doy na kawteef mm-hmm. ñu ne koo xam ne lim jur lépp a baax lim jur lépp a man alxuraan lim jur lépp a bind kaamil allahu akbar kon loolu na bu dee woon ci géej gi deful na kéemaan wallaahi la asim loolu doy na doy na dëgg la ok bismillah dëgg la jërëjëf sëriñ Maxtaar ci leeralu am solo yooyu diggante sëriñ Touba ak alxuraan waaye diggante sëriñ Touba ak ki koy topp ne sama taal sama sëriñ la ki ko yaakaar ne sama sëriñ la ak tënku ci njàngaleem fan nga war a teg alxuraan loolu leeral nga ñu ko ñu am solo mm-hmm. sa biir waxtaan li nga tëjee rek li nga jàngatee diggante sëñ Tuubaa ak alxuraan ak ki ko war a ak ki topp sëñ Tuubaa fu mu teg alxuraan mooy doy na sëkk ne sëriñ bi ku mu njabootee ngay góor wala jigéen bott woon nga alxuraanu karim loolu doy na ci ne sëriñ Tuubaa ku bàyyi woon xel téere bi la mm-hmm. waaye ku joxoon cër téere bi la mm-hmm. sëñ Maxtaar yan yan jeexit yan jeexit nga ñu mën a jàngatal ci bëgg Serigne Touba bëgg gim bëgg alxuraan ba tàggat ci njabootam ngir ki ko fasinéwul woon fasiné ko te xam ne njëriñu àddina ak àllaaxira moo ci nekk ndax sëñ yox na ko mooy téere bi nga xam ne ci lañ yaakaar ne suñu borom bi nar kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa bihi nanju dunyaa wa uxra minal karbi njàqare buñ koy buñ ciy muslu ëllëg ci téereem bii lañ koy jaaree loolu boo ñu doon digal àllal nga ñu wax suñu mataar waaw alxuraan Cheikh Saliou Mbacké radiyallaahu daf cee mas a wax lu am solo nee na kiy jàng alxuraan di ko jàngale mhm. moog yàlla ñoo bokk fu ñu ne hmm? kiy jàngale xam-xam nag daa nekk ci bitti yàlla nekk ci biir muy tegtal nit ñi ni leen yàllaa ngi ci biir jàll leen ci biir boobu martaba rek bokk yi mhm. doy na kon sëkk ki jàng alxuraan mhm. ne moom moog yàlla ñoo bokk fu ñu ne ki jàngale alxuraan moog yàlla ñoo bokk fu ñu ne ku dul ñoom nag mu nga ci bitti xam-xam li muy rëy rëy nee na koy jàngale ci bitti la ne di tegtal li ngi ne wa waaxu waa wala jàll leen waajaa ngi ci biir dëgg la kon loolu rek doy na ku namm sa borom na ngay jàng mhm. ba man araadal xorba xorba jooju day dee si waat baatu xorba jooju rek laa bëggoon a andiwaat jege ji mooy mhm. loolu ko sëñ Sall ne dëkkaale bi dëkkaale gi bi mhm. ki des ginnaaw yoon wi ñeenti ponk la Cheikh Saliou Mbacké ko nettali daana wax ne damaa war a xam yoon wi moom Cheikh Saliou ndax nekk naa fekk borom yoon wi fukki at ak yaar te keneen ku ko yor ginnaawam maak yow ñoo fi bokkoon ne. kon fekkee na dem fekke tey. waaw loolu li mu jublu rek mooy nee na bu ma lay wax dara ci yoon wi dama ko xam. Mm. si Saliou dafa ah, adib la woon. dëgg la macha allah mu ne nag damaa war a xam yoon wi. di borom xam-xam nag. wax dëgg yàlla waaw nee na nekk naa fekk borom yoon wi fukki at ak yaar. Mm-hmm. te keneen ku yor yoon wi ginnaawam maag yow fi bokkoon ne kon mook sëñ Modou Moustapha fi bokkoon ne mook sëñ Fallou fi bokkoon ne mook sëñ Abdou Lahat fi bokkoon ne mook sëñ Abdou Khadir ba bu yor yu mujj ci loxoom kon daa war a xam yoon wi dëgg la mu ne nag moom sëñ Saliou moom yi mhm. yoon wi moom yent ci jiitu lu ci tege door caa tege mhm. alquran xam-xam xasiida ñaqu ja nangoo liggéey waaye ba ci jiitu mooy alquran kon yoonu murid murid bu taxawee ne ab murid laa la ko jëkk a war mooy mhm. man alxuraan su ko mënul mu man ci alxuraan dara su ko mënul lam jur mu delloo waat ko ci alxuraan su boobaa ak murita man bokk naa ci ñi nga xam ne mën naa koo garanti dëgg la waaye bëri na ku naan la man su ma doon démb damay jànga ji alxuraan te bu ci yóbbul doom bu amee doom du ko fa yóbbu yéenewu ko alxuraan kooku du dëgg ci moom imaam Xasali mhm, radiyallahu anhu baayam mhm. ab mercerie la woon jaaykatu poqe waaye bu jaayee ba bëccëg lu mu am bu ci génnee dépense li kees da koy def ci poosam bu gisee koy jàng alxuraan mu toog fa jooyo jooy daal di ko dese woon jox ma may a jàngee alxuraan nii daal di tofli dem ñibbi mm-hmm. bu ci suba saa bu génnee dépense am wari koy jàngale xam-xam géewu xam-xam mu toog fa jooyo jooy daal di ginnaaw bu dem génnee dépense la amoon lépp mu jox ko borom mm-hmm. xam-xam ba ne yàlla yàlla nag ma may ku mën a jàngee xam-xam nii mm-hmm. ku njëkk mooy borom xam-xam ba Abu Hamid Muhammad al ka ca des mooy Muhammad rakk ja ñoom ñaar ñëpp mën alxuraan kon lam ko jaraloon mooy raw na ma waaye yàlla na ko yàlla def ci samay doom loolu lu am solo la moom laa doon nettali ci sa xissa boobu jërëjëf sëriñ Maxtaar kon mbokk yi looloy waxtaan wi nga xam ne amaloon nañ leen ko toftalu ca waxtaan yi ko jiitu woon lépp rek jëm ci weeru safar wi nga xam ne mooy weeru Cheikhul Khadim compagnie Alaaji Sëriñ Seck ànd ceeg yéen di ci ñëw ak yéen ci waxtaan wi am solo jëm ci dunduk sëriñ bi ak euh, thème yu wuute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 أوحي إليك إنك على صراط مستقيم